gaaw lu mu gaawee ñu mën di rallier Dakar. Pape Maguette am na ku nekk ci ligne bi. am na tam benn communiqué boo xam ne Ibrahima Lissa Faye euh, def na ko ci journaliste yi nga xam ñu ngi leen brutaliser ak yeneen ak yeneen mais laata may lire loolu rek ñu affiché ko euh, ci antenne bi euh, ma dañu dem jëli Cheikh Bara Dolly. Cheikh Bara maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di la dalal jàmm ci Leral TV Leral point net Leral FM ñëpp a ngi déglu ñu bàyyi la nga nuyoog ak askan bi ñuy déglu en ce mbokk yi man la Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly député de Touba vice président groupe parlementaire Liberté Démocratie Changement président mouvement nekkal fi askan wi maa ngi nuyu Sénégal yëpp di ko tàmbali ci mhm. euh, di leen nuyu bu baax yéen tamit ci euh, liggéey bi nga xam ne koy liggéey pour askan wi mën a xam jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh bi honorable gannaaw bi ñu la nuyoo ba noppi nga nuyoo tamit ñu ngi lay jaajëfal di la a jàmm di la remercier mais tey gis nañu situation bi xam moo xew depuis démb ak tey Ousmane Sonko euh, bi ñu euh, jël euh, ci caravanam arrêté ko yóbbu ko këram gis nañu tey ku jegi af F24 ak ñeneen ak ñeneen Guy Marius Sagna ak Aliou Sané teg nañ leen loxo kenn mënul dem këram tey ban jàngat ngay def ci loolu. waaw xam nga man li may jàng li ma si wax euh, en tant que chef religieux laay wax. Mhm. wax en tant que politicien en tant que citoyen. Mhm. parce que am réew nag euh, yaakaar naa bu situation tollee fii kenn ku nekk war nga si yëkkat sa kàddu. Mhm. bu fekkee bëgg nga réew mi. Euh, boo xoolee mois de mars deux mille vingt et un. bi nga xamante coow li jógoon na bi ma sëriñ Mountakha joxe ndigal ni ma fépp foo nekk na dee fa woote jàmm. sëriñ bi sax bu nga ko dee sàmm rek réew mi am dal ak jàmm. dafa am loo xamante ni il faut que ñu wax li nga xamante moo koy waral bu tollee fenn fii te ñu war waxuñu chaque jour que fii la réew mi di toll. ndax jàpp naa ni tey li ko gën a indi yëpp bokk na benn projet boo xamante ni ñii dañu ñoo def ñii dañu defuñu te yoon war a tracé te tracé gul mais noonu li mu indi ay faat bakkan li mu indi ci yàq matériel yaakaar naa ni tey bu démb doon tey bi kenn ku nekk da nga da nga ko éviter ba du amati. kon nag fi nga xamante fi doon toll mooy. Euh, Eh, di di di nit ki wala nga jàpp nit ki si loo xamante ne xëy na yoon daf ko terewul kooku yaakaar naa ni kenn ku nekk am nga ci loo naqari mais aussi dañoo nekk si réew boo xamante ni réew yoon la mais li mu si déploré bu baax rek mooy bu fekkee da nga nekk député yor sa mbalaanu kiira yor sa ban euh, euh, sa sa asarku kenn amul sañ-sañu jàpp la si loo xamante ni du fréquent wala loo deful kon yaakaar loolu maa ngi wax euh, député yi nga xam ne dañ leen a jàpp ñu leen ndax seen liggéey la ñu nekk. Mm-hmm. leneen li mooy di wax xale yi nañu dal parce que aussi tamit nit koo xamante ni dafa lay liggéey alalam yoonam nekku ci ab xeex ngeen dem këram taal ko lakk ay otoom yàq alalam yàq alu réew mi yoo xam ne ñëpp ñoo ko bokk te mm-hmm. ñun ñii di wax yéen muy man sama doom muy sama jabar doo doomi politiciens yi wala jabar politiciens yi kenn du leen gis ci mbedd yi mm-hmm. yaakaar naa loolu tamit war nañ ko éviter ndax réew mi ñun ñoo ko bokk am réew ku képp ku ko soxla defar doo ko bëgg a taal kon maa ngi woo xale yëpp ñu ànd ak dal ndax situation bii dundoon nañ ko fi jàmm ak waxtaan moo ko mën a eh, dindi mais ay yàq ak taal waru ko mënu ko dindi. Mhm. kon ñi ñi yàqul yëpp maa ngi leen di masawu mhm. te di wax ni yàq baaxul ci réew mu mën di doon. ndax mhm. aussi jàmm bu fekkente ni Sénégal am nañu ko nañu xam ne di ñu am kenn amu ko. ñi nga xamante ne peut-être ñooy def nag pour woote aw ay dañoo demul si dëkk yi nga xam ay am na fa ndax bu ay amee ci benn dëkk ba xas tàkk waxuma la yow. mais sa njaboot ak famille bi yëpp kat deetul mën a génn pour li jënti dara mm. te bu réew mi daanoo ñëpp la daanul mm. daanul Macky Sall daanul Sonko kon il faut que ñu éviter xam ne ñun ñi ay responsable lañ aussi ñu woo xale yi si dal te bañ leen si loo xamante ne day indi fitna ba réew mi am kaw bu réew mi kawoo ñëpp ñooy perte mm. responsable bi nag mooy politiciens yi nañu woote dal te ba a xeexaan nit ñi ñuy dal ci kaw kër

dañ ko jëmee si ay nit te loolu yaakaar naa war na ko éviter quoi parce que Sénégal nag ay noonu ak ay affaire yi ñu ngi koy doog gis si réew mi te loolu war na ko ndax Abdoulaye Wade nekk na fi opposition nekk au pouvoir mm-hmm. lu mel ni mus fi am te yaakaar naa situation bi képp koo xam ne ak góor nga wala nga di jullit wala nga bëgg sa réew da nga ko mm-hmm. ñaw ndax réew mi wut àgg fii nii te waxoon naa ne réew mu daanoo ñëpp la daanul kon nañu éviter réew mi kawoo mm-hmm. ñun ñoo moom réew mi parce que intérêt bi ñun kenn ku nekk dañuy xëcc pour sa intérêt bopp mais mmh. intérêt Sénégal ñu ngi ko jiital parce que ne ku bëgg a defar doo taal ku bëgg a defar aussi doo yàq. Mmh. li si kanam réewal juróom-ñetti juróom-ñetti weer moo tee élection yi jot kilifa diin yëpp ñu ngi observé toog di xaar. Mmh. di déglu aussi tamit di seetaan. am na ñoo xamante ni mënatuñu yëg seen kàddu parce que ñoom ñëpp kenn ku nekk digal nan la. sëriñ bi la mu war a wax wax na ko kenn ku nekk wax na la war a def mais bu fekkee nekk tey ji lam la sëriñ bi wax defuloo ko. woo sa woo say nit ci dal dafa bi.

en tant que euh, homme politique en tant que kilifa diine. Mhm. war nañoo wax ak ñi nga ñoo toog suñu ginnaaw parce que nag bu ñu waxul ay complice lañ aussi tamit. Mhm. ndax am na suñu bari ñoo xamante ni tey bu ñu sañoon réew mi tàkk pour ñoom bu réew mi tàkkee ñoom ñoo si mën a profitoo. Mhm. te demul noonu parce que bu réew mi tàkkoo ñëpp ñooy perte. ndax tey émotionnel tey nga jóg ni yow da ngay génn dem fenn. loolu nga si jublu mooy xam nga ne foofu boo fa demee doo fa dugg mais bëgg nga maam presse bi jël la lay doon tey yaa ngi toog kër ndax kenn koo xam yaa ngi génn di dem di yóbbaale sa jabar wala sa doom amul mm-hmm. yaakaar naa loolu tamit war nañ ko xalaat te soral ko te ñu si yàqule lépp mm-hmm. ay ay doomu jàmm lañ seen yoon nekku si yëf yi mm-hmm. ba pare ñaareel ñi nga ñoom la rey di leen jàpp tamit duñu benn doomu politicien ici ñu ñu sorale ko man dama contre Macky Sall mais li ma koy contre contre yëpp dama bëgg maanaam 2024 moom yoon mayu ko mu bokk te ñun ñun bu ñu bokkee danga ko daanee loolu mooy li nga xam moom mooy l'essentiel bi mooy deux mille vingt quatre mhm. deux mille vingt quatre nag ay mois moo si des mhm. mais kenn ku nekk tey ji am nga yoon boo xam ne mën nga si jaar pour nga àgg si nguur gi mais doo rey nit parce que Ablaye Wade amoon na occasion pour defoon li mais moom Ablaye Wade jéggi si ay néew di dugg si palais bi yor na ko yoroon bu rafet liggéey na fi jóge na fi tey kenn ëpp ko naqar si àddina ndax tey ji ñu ngi tëj doomam xeli doomam mhm. mais est-ce que tax na mu wóor nañu ne leen kaay kon maa ngi woo leader yëpp ñu def maanaam ay waxtaan. Mhm. woote jàmm si réew mi woote dal responsable noonu lay mel. jërëjëf réew doo ko bëgg ba pare di ko yàq. jërëjëf honorable. merci jërëjëf jërëjëf honorable euh,